de tous les Sénégalais. waaw chaque élection président mm. mm. pour apaiser. Mm. Sénégalais pour nous dem élection si parce que moment la meilleure wax que mm-hmm. pour si si forme bi encore <laughs> euh, euh, euh, si mm-hmm. les mm-hmm. monnaies, moo ko bindoon si jëwam yàlla moo ko bindoon si jëwam mm-hmm. ni jomaay à l'âge de quarante quatre ans moom mm-hmm. mooy jiite Sénégal mm-hmm. kenn mënu ci woon dara du loo xam ne ni da ko yóotu woon yàllaa ko teg ci loxoom kon moom suñu borom moo ko dénk mais nag suñu borom du la dénkee il faut nga xam li mu la dénk mooy lan li mu la dénk mooy war nga yemale képp kuy doomu sénégalais war nga jox cër réew mi war na war nga cëral réew mi te bañ si am diwla la wala diwla wala diw ak xeexoon na mhm. parce que do gisee tay ni pas taxawé ñom ñep ku si n'est que ni réclamé mu defoon na ci li waxon na ci li kon amna droit def li amna droit wax hmm parce que ñom Sonko il a appris à sa jeunesse à n'a pas respecté le président de la République du Sénégal mhm. Sonko il a tout dit à Macky Sall mhm. na ko def Samuel Do tey Diomaye il regrette que parce que ña ko doon wax Macky Sall tey ñoom la Diomaye àndal. Hmm. il a de ça. Hmm. boo ko xoolee sax da ngay xam ni nekkul il n'est pas à l'aise à hmm. son âge nga diriger peuple sénégalais. mais t'es pas à l'aise lan moo koy lan mooy jeune Diomaye. lan moo ko metti ak lan moo ko naqari ak lan la ragal man je vis un peur dans ses yeux. et j'aimerais bien que ma découvrir ban peur ban peur la am pour diriger le Sénégal.

dem leen ngeen xol ko waa cybercriminalité ñu tëjoon koy koy commissaire Kayta hmm. dañ dem xol paasu Jomaay ñan ñoo fa nekk di saaga le président de la république hmm. ñan ñoo fa nekk di ko xass ñan ñoo fa nekk di ko critiquer si lan si nomena nit par degré mais hmm. eh, il a il a il a il a le plein droit de nommer un sénégalais du nommer un étranger les gars ñun li ñuy waxante ci langue politique bi di xassante di saganté Mm-hmm. di yàqalante mm-hmm. tey du ñu demee ba tey ñu soxla Mimi Touré bi ñu ko soxlaa ñoom ak mm-hmm. Mimi mi mu leen wax yëpp euh, polémique bi demewul woon ni ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ni man xam naa leen bu baax ñoo xam ne ku si mel ni ñooy mën a buso par exemple ñooy mën a buso bi Karim feebaree il a di a usmaan Sonko moom moo mën a yow mën a buso du taxaw mu weddi ko il a tout dit à Sonko tey du ñu xàññi Mimi du yow du ñu xañ Maimouna Bousso lan moo tax du nga ko xañ mosul mm-hmm. gëm Yewwi Askan Wi moo tax bokk si woon mm-hmm. mais ñoom ñëpp ku si a nga may wax conflit d'intérêt am parce que mm-hmm. on a beau bien xeex ba nga xam ne ni Pastef bi dara nekkulee dara ñu da ko jëmbal dundal ko mais la may wax rek lu sorti am borom te tey Pastef foog mu assumer que lu sorti am borom ña ko taxawoon gëmoon idéologie bi ba léegi ñoo ni fi di mener seen propre combat parce que xeexuñu woon pour Pastef dañ doon xeex ngir réew mhm. mais Ousmane on avait besoin que un leader mhm. leader boobu xëy a yaakaar la ñu amoon mhm. parce que waxoon naa leen kenn du gëm nit ki nañu gëm suñu Sénégal Ousmane dafa am ay sens ak ay raison dafa am ay bëgg-bëgg ak ay bañ-bañ mais nit ñi la may wax rek dañoo tàmm yaakaar doomu adam te yàlla rek la ñuy yaakaar léegi nag Diomaye il n'a qu'à prendre ses responsabilités il n'a qu'à prendre ses responsabilités yàlla joxaat na ko occasion pour mu prendre ses responsabilités. parce que mhm. ñoom ñooy naan woy dafa défier Sonko. Mhm. dafa def lii mais bi que bi Sonko di défier y mhm. ñaan naa premier ministre mu dem def déclaration de politique générale. bind décret wax wax ko bind ko. Sonko génn fële défier ne man dawuma yéen sax assemblée dinaa leen tas avant ngeen ñi def. motion de déclaration de politique xam Sonko défier président de la République. koo xam ne kilifaam la hmm. na ko jox cër bi ko yàlla jox Sonko nañ dimbali jomaay hmm. jox ko cër bi nga xam ne ni yàlla moo ko jox hmm. jaarale ko nag si si sur les sénégalais kon na ko jox cër boobu naka nangu parce que da am sa booy ngeen di toog mu lay ataayal xam nga di la toppatoo nga xëy suba yàlla fal ko imam si biir koñ bi ñow jox ko cëru imam boobu yàlla fal ko loolu mooy grandeur loolu mooy patriote bi ñu woote foofu la patriote war a commencer pour mm-hmm. jàppale Diomaye mm-hmm. qui devient un vrai patriote pour ce pays mm-hmm. euh, d'accord euh, yaa ngi koy wax sang ci wax euh, muy mel ni boobule parti tey jile peut-être ay problème am na ci biir euh, ñu gis euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko daa def ab euh, tweet ne mbirum Samba Ndiaye dinañ ko jël ay mesures moom Bassirou Diomaye fay ñu daal di koy poser question wu wukkile di Samba Ndiaye mu ne loolu réponse ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko la dañ koy poser boobu lay question tey jile bu ñu xoolee yooyu noonu yëpp ndax mënuñoo ne tey fi ñu toll nii lii di Pastef fa mu jëm buñ ci xoolee bu baax a baax.